asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokk yi teew ci jataay bi yëpp di jiital Serigne Mamadou Mahfouf mi nga xam ne moo waral jataay bi ngir màggal guddik laylatul xadri ci jeexitalu way juróom soxna Maymuna ànd ko ak njaboot gi yëpp mu jiital ko. mu may may itam nag ñi ko Ablaye Mbaye peex tàmbalee ci sëriñ Abdou sama mu sëriñ Chouaïbou ba ci ki mu mujjoon a lim ma tegale ko may nuyoo leen noonu nuyu bokki jullit yi fi teew yépp nuyu mbooleem koo xam ne yaa ngi dégg suñu kaddu ndax lu mel ni su mosaa am léeg-léeg boo xëyee da ngay ñu ne dégg nañu fa ngeen doon waxee biig mu nekk mubashara xëy na mubashara lu ci mën a nekk léeg-léeg mu am di nuyu ñu nga xam ne ñoo fi teewal ci yàlla teg ci boppu réew mi mu di Macky Sall te Ibrahima Sall mi nga xam ne ni ñu ko waxee léegi jarbaat la ci sëriñ bi di sët ci sëriñ bi jiite ko loolu yëpp doyut ndax bu doon loola rek am ñu ko ci jiitu waaye yaakaar di ñu am ci yow ak fa nga jaaree tax na loolu am kon yàlla la ko yàlla barkeelal te yàlla nangu liggéey yi nga xam ne moom ngeen sumb te li nga xam ne moom la Cheikh Abdou wax léegi lu am solo la nañ ko def ju nekk nañ ko wax na ko jiitu ba tax na fa tafsalu nu ko alquran di waxeeti wala tanasaxu fa tafsalu wa tastabarihukum wasbiru inna la maa sabirin la ko waraloon moo di ay gaa yoo xam ne dañoo toogoon di ñaan yàlla sunu borom ba mu may leen li ñu bëgg ba noppi ñu wëlbati ko fa nag di xiiroo ko ŋaayoo ba far ko ñàkk kon nañu fexe ba xiiroo ŋaayoo bu mu ci am mukk te ku la njëkk a reer war na la aw reerin ku jëm ca marché ba te laajal ka fa jóge luñ fay njëkk fa am nga door a dem kon loolu si Abdou wax lu am solo la ndax réew mi ñun ñoo ko bokk te kenn mënut a dem bàyyi sa morom ku nekk na nekk ci sa wàllu bopp di ko bàyyi na mu waree nawet la ñu nekk ku ne yaa ngi sa tool di bay noonu la adduna bi yëpp bindoo yàlla leen ko yàlla barkeelal lépp lu ngeen fi fekkoon nit def ko fii ci lu baax ne leen fi jiitu woon yàlla may leen ngeen def lu ko ëpp lépp lu leen tarxis loo woon ngeen moytu ko ñaan leen yàlla itam mu musal leen ci te ñu joxante nag àq yi ba mu mat ndax baaraam yii de soo leen bëggoon a yemale da ngay mujj dagg ko ci tikki jaara ji rek waaye du ñam bokk kon yaakaar naa ne lu ñu jàngalee ti amu fi waaye lu ñëpp ko xam la lañuy fàttali ndax kenn du fi wax lu kenn musta wax dañuy wax rek di fàttalante tàmbale ci yow miy wax yow sa bokk ak ñi lay déglu kon fàttalante rek moo fi nekk mooy nañu ànd defar nañu ànd wut lu baax nañu ànd yéene lu baax kon loolu lay teg ci nuyoo bi nga xam ne sëriñ bi soo ma ko mayee ma nuyu ko ñi nga xam ne ñoo fi teewal ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppu réew mi mu di Macky Sall di sant bu baax ci jataay bi nga xam ne moom la am te yàlla may nu nu teewaat ko te da ko soob rek mu def ko waaye du lu ko war mu may nu ko ndax am nañu ko teewoon daaw te teewuñ ko ren su ko neexoon nu bokk ca ni mu ko soobee nu bokk ci ren nag noo koy ñaan mu may nu mu soog ko nu teewewaat ko ay at at yu bare bare di sant Cheikh Mouhamadul Basir ci kàdd yi nga xam ne yëkkati na ko te mu lamb lépp nag te noonu it la ko war a lambe ndax yaakaar naa ne fa mu bàyyi ko ak la nga xam ne moom la fa jële ci kër boppam gi waaye ci kàddu sëriñ bi ci boppam loolu rek noonu la war a mel te yaakaar naa ne képp ku ko dégg ku nekk xam ne guddi gi lii rek la laaj am na buñ ko fi mosoon def guddi lay laylatu xadr fii bi ñu xëyee am ñu toogoon ak Serigne Saliou radiyallahu taala anhu mu ne ba ñuy waxtaan daf ñuy déglu ba mu jàgg mu ne noonu rek la ñu war def laylatu xadr kon guddi gi jar na mel noonu di siyaare Serigne Cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikhil Xadim te mandarga yi nga xam ne moom la làmboo ci yot bi nga xam ne moom la yemu di ko doxal ci digganteem ak nit ñi digganteem ak bokk yi digganteem ak réew mi digganteem ak diine ji lislaam yépp loole muy màndarga boo xam ne biir nañu ne loole mooy doxinu Serigne Touba ndax Serigne Touba ñépp njabootam la kon moom itam dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg sunu kanam lool te lii mu nekk ci liggéeyu sëriñ bi di sagal yoon wi di sagal ñun yoon wi di liggéeyal sëriñ bi yàlla may ko loole lu mu ca bëgg mu mën koy gën di def nu ko nu mu ko bëggee sëriñ bi di la jotal nuyoo sëriñ Cheikh yi mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Mooti mi nga xam ne li mu doon ci sëriñ Touba ginnaaw bi ñu bokkee Mamour Anta Sali doonatul kenn di wax ak ko waxaat waaye ku ci am ab cër ku nekk xam nga ne la mu am doy na la sëkk ab cër te sëriñ Touba ku mu sedd ku nekk itam la mu la sedd biir na la ne mën nga caa dem yàq koo mën ku nekk. waaye boolewaat ko nag def ko benn takk delloowaat ko Serigne Touba loolu mooy ittee borom Darou Mouhty loolu la Serigne Cheikh Khady tam di dund ba fi mu nekk nii. Serigne bi Niass wax na lu am solo lool di Serigne Mbacke Bousso waaye radaaru Serigne Touba boobu ndokk bi nga xamee ne ni nga ko waxee dafa nekk euh, tas bi xëy xëy bu taam lañ koy mën a tuddee tas bi am la mu xam ne xëy bu taam lay naa naaxis lay doon moo di da ngay nuróole waaye nuróole nga day des radar bi boobu da koo ñot da koo di taf ci boppam waaye sànniwu ko. moo tax ñu ne Serigne Touba Serigne Mbacke bu sa doy na ci kiimaan ci moom ak Cheikh Ibrahima Fall kon radar bi da koo xëcc taf ko ci boppam bokkul ak radar yi nga xam ne moom ngay dégg fële ci Syrie wala feneen ak feneen kon tas tas loolu ci jàngale la bokk moo di tas bi tey xëy na taamu moo di da ngay nuróole ak Bassirou Mbacke ak Modou Mafos ñoo nuróo ba ca waaye des na tuuti nopp ba wala nangam am na lu ñu nuróo du lépp kon Serigne Touba loolu la radaram bi ñoddee ki mu bëgg Serigne Mbacke bu sa ak Serigne euh, ak ak Cheikh Ibrahima mag ñi dañ daan wax ne doy nañu kiimaan rek sëriñ Touba kon ñu ngi sant bu baax yow itam yaa bokk yi nga xam ne ñoom nga jël kàddu ci seenu tur xam ne rek diine ji benn la bokk gi genn la nii lañu ko bëggee nii la war a amee li nu ci war nag noonu mooy lan moo di alquran ji nga xam ne moo wàcc ci leylatu xadar nga xam ne moom la ñuy dund suñu boroom su fekkee ne def na la wooram bu la nee jullil bu la nee natal asaka bu la nee demal màkka lépp lu mu la wax ci biir alquran jàppal ne noonu la la waree wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuuna bi aduwallahi wa aduwakum xam nga sunu borom su nekkee de seeni i doole seen i kattan seen i pexe yépp dajale nañ ko te képp ku leen wóor ne noonu yàlla la ngeen xeex ak moom képp ku leen wóor ne seenu noonu la ngeen xeex ak moom loolu dafa leer am na ñoo xam ne seen mbir dafa leer waaye kay la ci jaaxal mooy wa axarina min loolu mooy mooy li doy waar wa axarina min duunihim mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom noonu yooyu ñoo yem te mënu leen leen gis laa taalamuunahum allahu yaalamuhum laa taalamuunahum allahu yaalamuhum ña ca des nga xam ne du ñu noonu yàlla yu ngeen teg bët du ñu seeni noonu yu ngeen teg bët waaye nag ñeneen lañu nekk ci seen biir laa taalamuunahum allahu yaalamuhum yàlla rek moo leen xam ndax ki nga xam ne bëggul waa kër sëñ Tuubaa doon benn laa taalamuunahum allahu yaalamuhum ndax ki nga xam ne bëggul diire ji doon benn laa taalamuunahum allahu yaalamuhum ñooñu ñooñu la ñu war a def lañu dajale suñuy doole fexeel leen ndax lépp a ngi fi milliards yaa ngi fi pexe yaa ngi fi lépp a ngi fi ngir tas tabax yooyu nga xam ne moom la mag ñu baax ñooñu doon tas doon doon tabax kon wa axarina bi duunihim yooyu nañ gën a adduwa laay wa adduwana wa mu jooju alquran di wax waaye nañu xam ne wa axarina min duunihim laa ta'lamuunahum allahu ya'lamuhum am na koo xam ne lii ñuy def dara neexu ko ci laa ta'lamuunahum allahu ya'lamuhum am na ñoo xam ne waa kër borom Darou Mouhty nekk benn neexu leen laa ta'lamuunahum Allahu ya'lamuhum am na ñoo xam ne nitu diine yi ak nitu adduna yi déggoo ngir nit ndax réew mi mëntee dund neexu leen laa ta'lamuunahum Allahu ya'lamuhum la nga xam ne nag yàlla rek moo ko xam nun mënuñu koo xam dañuy ñaan yàlla suñu borom ci guddi gi tedd gi ñooñu nga xam ne ñu ngi jaxoo si suñu biir te yàq rek tax leen a jóg dara wax taxu leen a jóg suñu borom nasaxal leen feeñal leen ba ca bu ñu feeñee danañu daw danañu yàq ndax li wér te moo di fii li fi nekk lislaam a ko yor moo ëpp doole moo jiite lépp te képp koo xam ne kii yaa ngi koy jéem a nasaxal fa mu tàmbalee woon rek foofu lay delluwaat faw ci daanu rek la ñu fa lilahi hamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi